ay ayca jërë ngeen jëf mbokki internet yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen bii di Fekke TV ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci wàllu làmb dinañ leen ko toppal yaakaar naa ne gis ngeen ne sortie bi nga xam ne moom la fis de Balla def wax ko ci Balla Gaye am na ñenn ñoo xam te ni tamit ñi ngi ciy wax polémique yi bari coow li bari trop trop trop ñii ngi naan war na ko def ñii ngi naan waru ko def ñii ngi naan ci Balla Gaye la coow li bari ñu toog ci toog cee kenn koo xam ni yaakaar naa ne mënoo tudd Géejawaay te doo ko tudd muy Bou Siteu ñu war leen moom bu ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di sant waa Géejawaay bu baax a baax a baax di sant tamit fi ñëw nii muy corniche waaw kër Aziz Ala Ndiaye di nuyu Anta Ndiaye bu baax a baax a baax di wax ni kontaan naa si moom trop waaw Anta Ndiaye gis naa ne jàpp na si combat bu baax. Mhm. waaw di ko sant bu baax a baax a baax di nuyu tamit mhm. Aziz Ndiaye moom tamit maa ngi woo si combat bi waaw Aziz Ndiaye maa lay yaag Baye Ndiaye maa ngi lay woo si combat bi Masata xam nga Babacar Ndiak waaw borom xew bu rëy bi Babacar Ndiak waaw nekk maanaam nit ku baax waaw jabaram baax xama waaw jabaram nekk maanaam ku valeur daal waaw di la ñaanal jàmm di ñaanal bébé bi yàlla defal ko jàmm yi defal ko fulaay dund waaw yàlla na yàlla defal jàmm di bëggee tamit Paul suma doom yaay xama waaw nekk koo xam te maanaam lu yàgg dëgg daal waaw pàq Baye Moussa woon waa di bëggee gaa yëpp nag di bëggee jàmbaar yëpp waaw ñoom kara gaa yi nekk fii xam nga ñoom bébé ama xam nga waaw ay bax xam nga di leen nuyu bu baax a baax a baax di sant Anta Ndiaye bu baax. mais bu coow li bari ci diggante Balla gay ak ki nga xam ne moom moo di fii sa Balla nga gis fii sa Balla génn fësal naqaram ci Balla Gaye en tant que lutteur nan nga ko gisee. waaw nu ma ko gisee muy maanaam mu nekk loo xam te ne maanaam communication de ma attendre la. waaw communication de mal attendi la waaw mal attendi xam nga waaw Fils de Balla woo xam-xam ni Balla gay 2 la tuddee boppam te ku xam Fils de Balla ku xam ku gis Balla gay 2 gis nga Fils de Balla si ginnaawam xam nga mu nekk loo xam te ni ñoom ñaar lu yàgg dëgg la te gis nga Fils de Balla lu muy sonnee si Balla gay 2 xam nga waaw guddigal na ko bëccëgal na ko xam nga waaw si luñ teg suñu bët ak xam nga si luñ tegul suñu bët si ñoom ñaar maanaam si seen dund daal waaw lu nekkoon ci xolam la rek mu waroon ko génnee wax ko Balla Gaye 2 te parce que Balla Gaye magam la waaw rakk war na wax ak mag man guy gi mag guy gi jaar nañ si coow waaw ñëpp gis nañ sama diggante mag guy gi jaar nañ si coow waaw ma fekk open press waaw xam nga ma fekk open press fils de Balla xam nga par erreur xam nga nit woo ma jox ma faux information boo xamante nii xam nga amul daal xam nga yaa ma gën a xam ñu topp suñu fëgg de jeunesse xam nga ma fekk guy gi xam nga maa moom mu am ñu am si luñ jaar mais après gis nga génn na wax man ma génn wax mu nekk raq ak mag mais après gis nga gaa dañoo waxtaan ñu nekkaat ci jàmm tey jii guy gii nit ku baax la waa di ko woo ci sama combat bu baax a baax a baax Balla Gaye ak Fils de Balla nag pour man noonu la demee daal waaw. mais mais est-ce que tey Fils de Balla waroon na génn wax Balla Gaye ŋàññi ko ci internet rafetlu nga lool. man gisuma maanaam ŋàññe man man li ma gis muy maanaam li nga xam ne nii maanaam moo nekkoon si sa dënn nga war ko wax mu jeex maanaam ñun dañuy ñaan rek wax bi Fils sa Balla wax mu nekk wax boo xam te ne luy defar la lu nekk loo xam te ni Balla Gaye 2 dina si tirer leçon waaw Balla Gaye 2 dina si parce que Balla Gaye 2 nit kese la waaw maanaam nit kese la waaw moo loolu Balla Gaye 2 du du du du du du xama xama nekkul loo nekkul nit koo xamante ne nii maanaam waaw nit kase la ba pare moom tamit nitu kase la nit ku wàccee boppam la mais raq la ak mag waaw yoon la fii sa bala am lu ko metti si sama diggante moo fi mook Balla Gaye 2 mu génn wax mais loolu noonu loolu du dara loolu Balla Gaye 2 nekk loo xam da si war a mën a tirer leçon yee kon Balla maanaam ci li fi sa Balla wax daf ci war a jàngat kon kay kat nga jàpp ne ñoom ñaar moo def erreur bi non su may jox erreur moom maanaam duma ko jox sax kenn su may wax waaw te parce que Fils de Balla moo génn wax Balla gay 2 xam naa ne sax Balla gay 2 fii sa Balla ra xam la du génn sax di koy tontu. loolu Balla Gaye 2 boo ko dëkkoon mi ko doon ñu sax di si tontu. te parce que Balla Gaye 2 nit ku baax la. waaw nit ku baax la erreur de mal attendu la. xam nga yaa ma gën a xam. xam nga rek maanaam laa mu ji léegi moo jaxasoo politique bi ñëw xam nga dugg ci rëbëjë mbër yi xam nga jaxase punkal yeeg moo loolu tout tànk yi xam nga rek. waaw ñun tamit ñu nekk ay xale yu ndaw yoo xam te ñun moo loolu xam nga rek. waaw gisoon nañ suñuy mag génn amoon lu ñu waxoon ci suñu mbër yi affaire conférence de presse yëpp mais mooy loolu ñun ay loon Bou Siteu leader la boo xamante nii am na samay junni doomu aadama ñoo xamante ne ay mbër yu ndaw lañ xam nga man fi ma nekk nii amaana ñu bëri yeegu wuñ fa te parce que ku xam Bou Siteu xam ne Bou Siteu international la kon dafa jot man yenn saa yi may jàllale message yoo xamante nii pour sa suñuy ay rax nit ñi di bàyyi xel suñu ay rax waaw gis nga yow politique bi dafa rëbëjal làmb ji waaw mooy loolu mais ñu ñëpp ñoo far waaw mais mais mais tey Balla Gaye lan nga jàpp ne waa moom lañ ko meree ñenn ñi mi ngi wax ba naan Boy Niang mi yaayam jóge Màkka mu seeti ko ak yooyu noonu daa ni def ci xaw a wala. waaw gis nga yooyu yëpp mooy loolu. waaw Balla Gaye gis nga diggante combat moog Boy Niang man gis nga gis nga man ni ma loolu mu Sénégal moom ñëpp xam Bou Siteu ni mu ni mu meloon si kaw combat boobu. génn xam ma amul lu ma yàqul booy Niang amul lu ma yàqul booy Niang waaw boo ñaa nag di la wax ne am naa combat yaa waxoon boo ñaa sa turandoo sa bu Siteu bu amee combat wax ma ma jàpp si mu nekk nit ku baax te gisoo amul lu ma ko yàqul si internet bi boo ñaa waaw dëgg la yaa am jóge na maxa ma gis Balla gay 2 dem fa xam nga moo loolu te ñoom ñaar bëre nañ am na si lu ñu jaar waaw mooy mais tamit làmb tamit bu jeexee rek jeex na bu jeexee jeex na ñooy mayante xaalis xam nga ñooy mayante xaalis gis naa Balla Gaye de dem fa gis naa fii sa Balla tamit wax ba xam ba duggee si côté boobu noonu xam nga moo mooy loolu mais xam nga rek waaw maanaam lépp waaw mun na am tamit Balla Gaye de xam ak ni ko nit ñi gis nga nuñ génne woon daloon ci kawam askan wi xam nga ñëpp dal ci kawam amaana tamit mun na tamit nekk loo xamante nii moo tax ñëwul ci ngéntali xam nga yooyu yëpp tamit dafa jaar a bàyyi xel te parce que ñoom xam nañ ne askan wi da na mere waa askan wi dafa mere ñii wooyee VIP waa ñii wooyee VIP mooy maa ngi ñaan sax askan wi léegi baa leen VIP xam nga rek ñoom dañuy def lu yoo xamante di dugg ci ay erreur yoo xam ku ci mel ni Eumeu Sène maanaam di dugg ci erreur yoo xam di taxaw di taxaw di waat xam nga ay Modou loo suñu waxee mu naan ay xama xama la sama xama xama rek muy ñoom ah maanaam dañuy dugg si loo xamante ni ñooy jégalu leen ñun seen ay raq ngeen xam nga ñun mooy loolu ay suñu ay frère ngeen. waaw maanaam waaw dee leen dawal faire di yërëm seen i mbër yu ndaw. waaw ñun dañoo sonn man 2016 ba léegi ma dugg ko si làmb. te xam nga maanaam dafa jot ñu geesu. ñu geesu boo yi nga xamante ni dañoo sonn si làmb dama sonn ci làmb de. te tey jii su ma bëggee làmb yàlla ak ay Modou Lo ay ay Ama Baldé man tey ji ñooñu gën nañ tax man ma bëgg làmb kon tey su ma demee ba ñooñu tax ma bëgg làmb ma dugg ci làmb Bou Siteu am na fu mu tollu nit ñi war nañ ko mën a mën a bàyyi xel daal ci làmb waaw te xam ne bu booy bi nii képp ku ko jàppale rek amaana mbëri ndaw yi nekk si ginnaaw duñ duñ sommee te parce que Bou Siteu ku ko xam-xam ne Bou Siteu man damay dox si social te damay xam damay dox si social moo maanaam man sama social nekkul lu may fësal comme di def social ni naan ay génn naa may naa kii lii woy rek mais wallaahi damay def social. damay def social boo xam te nii maanaam nekkul lu ñuy fësal di koy wane. waaw te fan nii rek maa ngi waaj benn projet boo xamante nii ku mel ni Aji Ndumbe moomu dugal ci benn projet boo xamante ni maanaam pour ñii ñiy taxaw détenu yi te parce que ñoom gis nañ Bou Siteu maanaam nu mu fonkee nii yi man ay dë man gars yi rek laay dégganteel man kaso bu nekk dama fay dem di seeti. bari ngay xarit waaye bëri naa fa ay xarit ku si mel ne ay Moussa bu ndaw ay boo yoo xam nga jàpp leen tëj leen 15 ans si ay problème yoo xam wala bu ñu leen atte woon un leen tëj wala 6 mois maanaam dëkk bi léegi day doxee noo xamante ni maanaam metti na daal ci prison yi gars yi ñu ngi dund lu metti manifestation yi xoolal ñaata junniy doomu aadama lañ si jàpp mais mais mais mais maanaam dafa nekkoon loo xam ne askan wi loolu leen metti woon la ñu dëgg la ñu génn dañ koy génn fësal ko wane ko mais boo ma jàppee mais Europe amul lii Europe amul ay jàpp rek vie de nit koro fi ay manifestation mais manifestation ni ñu ciy jàppee ne di la gaar gaare korok naan ay appart dañuy xool si xaar seen dossier mais loolu dafa metti waaw di wax ne nag Antoine Diome Antoine Diome la tudd ah, waaw ànduwoon filis yu joono xam nga rek waaw maanaam yërëmal détenu yi daal nga nga li may wax ne ba bëgg nga bës si béton te parce que moom ay doomam dañu may suivre waaw man si réew mii nii am na xam ne seen doom wallaahi buusi rek la ñuy topp waaw ku si mel ne kii euh, Mbaye Diop Mbaye Diop borom mbaaw neex a fekk mbaaw keroog damaa ñëw mbaaw xam rek ñëw kii ma si piscine bi te man miinu ma piscine bi ndaka def piscine bi dafa am seize am maanaam dafa wàcc un fu xale yi di fooye ak foo xamante ne nii paa yi fa la nekk mais am foo xamante ne dafa dafa xóot xam ma juum nag dugg ci seize bi. dugg ci piscine seize bi mais jour tuuti ma lab. parce que yàlla mais Mboye Diop boo ko fi a fekk mbaaw. yàlla na la yàlla defal jàmm. ndeysaan ñu bari tamit ñu naan làmb gars yi respecté wuñu ko. ndax dañuy gis saa bu yëngu-yëngu amee ci dëkk bi ñu arrêté lépp loo xam ni moom moo di activé bu jëm ci wàllu làmb rawatina kaaw ñoo kaawu jàmbaar dafa metti tey maa ngi koy félicité ñoom Papa Sow maa ngi leen di encouragé bu baax a baax a baax di leen masawu mu metti lool nga xam ne ñoom saa bu ñu jàppee ba nga xam ne suba la manifestation am ñu arrêté làmb lan mooy diggante làmb te teewul nawetaan mi ngi am ay handball mi ngi am yeneen yëpp di am ñu arrêté làmb lan mooy làmb ak politique. waaw muy làmb comme comme lu may wax samay émission lii rek maanaam maanaam lii ne rek moo lay wan ne état bi man gëmuma ni bëgg nañ làmb te parce que yow imagine toi yow dëkk bi lu yëngu rek nga arrêté làmb te dañuy arrêté arrêté yoo xamante ne nii tey jii ku si mel ni jàmbaar mais tey xoolal jàmbaar combat yi mu tëgg ay combat centaine de millions la génnee teg ko ci taamul jox mbëri ku xool mbëri yu mu tëgg da ngay xam ne ñii ay mbëru un million deux millions jëm ci kaw la te parce que ku xam Liss Ndiago xam ni ñooñu ay dañuy mobiliser ñooñu ay ay ay millions la leen fay xam ay ku si mel ay naaru sokaas ak ñeneen ak ñeneen ñu si bërëm mbayitin talfa mais yooyu ay journée yu mag la mais tey ñooñu war nañ xool ci promoteur boo xam te nag promoteur bu maanaam ku am discipline ci làmb promoteur boo xam kenn mosu ko dégg su lu ñàkk fayda xam nga muy Mansour nekk koo xamante ne maanaam ñëpp ko naw daal ci làmb te yàggagul sax su si làmb mu nekk nit ku baax xam nga di ko di ko masawu nag waaw def naa si interview du benn du ñaan di ko masawu bu baax te parce que moom nit ku baax la te nit ku discipline la xam nga waaw Mansour ngi koy masawu bu baax a baax ko ñaan yàlla defal ko jàmm di wax ne nag na ko gars yi teel a jox journée bu date bu baax mais dafa kooku maanaam waruñu ko jox sax ay date yu di ay deux mois dañ ko war a jox date date bu gaaw te parce que nekk na promoteur boo xam maanaam waaw maanaam waaw yàlla na ko yàlla defal jaamu daal waaw ak ñu ñëw ci date sàjj gi nag nga xam ne dimanche bii di ñëw bi si topp diggante Baye Mandione ak ki nga xam ne moom moo di Bébé Diène tàkkusaan boobu nee naa la bari na ci ay xale yoo xam te ni ñëpp ay ndaanaan lañu jama yi dafa dafa dafa innové ndax yaakaar naa ne ko jël Bou Siteu boole ko ak ki nga xam ne moom moo di plateau lu buu nar le 13 digganteem ak plateau waa di nuyu jamaïcain bu baax a baax di ko nuyu di ko sant bu baax maanaam combat bi dafa taxaw taxaw boo xam te ni ñu bëri maanaam xamuñu lu tax combat bi ak combat bi nu mu taxawee te loolu dafa war a leer te parce que booy bii nii man xam nga maanaam du ma maasam quoi. waaw combat bi dafa am neneen nu mu nu mu taxawee noo xam ne dafa ku xam Bou Siteu xam ne maa ngi doon waaj leneen waaw amaana garaawul mooy loolu dafa war a yàqu rek mu yàqu ku si mel ne jamaïcain ñëw nag tëgg ma xam nga mooy loolu ñu ñu jël avance bi remboursé ko promoteur bi nga xamante ne combat woo dafa yàqu xam nga mooy loolu jamaïcain di ko sant bu baax combat bi nag nii laa ko jëlee waaw nii laa ko jëlee lan moo la dugal ci palaato waa lu ma dugal si moom rek muy maanaam waaw maanaam dañoo war a fay coow li daal parce que bool bi bëri na wax waaw Plateau yow ku xool Plateau émission bu mu def te waxu si Bou rek émission pour moom deful émission xam nga rek ma yàgg ko bàyyi xel xamaa di ko topp ndànk ko di koy suivre xam nga muy def ay émission mais musul def émission te gaaruwaale wu ma. xam rek ma xam ne tamit gaaruwaale. bu yàqu daaw la. daaw ma loolu maanaam instant yii retour de la. parce que Serigne ma xam ne rek maanaam laaj yi may laaj te man xam nga du ma maasam daal. waaw looloo waral sax. loolu treize daal da nga ko bëgg a woon ne ko doo maasam. barke kii man du ma moromam looloo waral rek ma jël combat bi war ko teg lu metti nag war ko indil loo xamante ni nii Bou Siteu 2016 laa koy indil. waaye li nga wax Bou Siteu ci sawarte gi. loo xamante ne nii musul am ci làmb. gis nga mus dégg mbër mu ne la nangam nangam dat wax benn dat muusoo ko dégg ci làmb Bou Siteu 2016 laa koy indil ci làmb te su ma ko waxee loolu moom moom moom daf may suivre xam na li ma koy indil. mais day xeex de gis ni mu def mais ay mo bu Siteu moom kenn du jaawale ay Papa ay kii loolu mafia Lion bi sax dañ naan ñoom xam nañ sax ay Bamba ak ñoom la sax ñoom dañuy toog sax naan lii munul nekk maanaam sama diamétralement opposé parce que Serigne Touba Mbacké bokkul sax waaw maanaam booy xam rek dama ko raw si lépp dàq ko bëre waaw man école ba mu fekkee barke Serigne gis gis nga nu ma mel nii man. Ah, instant yii nii kon dag laa jógee. man combat bi samedi sax moo koy entraîné. li nga wax chaque jour deux séances. lu waral loolu séances. combat bi dama war a ñëw prouver dafa dama war a ñëw wane man fii du sama place. kan mooy sa sama place si ay wulli la. wulli wulli waat. man foofu laa teg sama bët parce que wulli ku ko xam-xam ne wulli jaarukaay wu neex la te man damaa bëgg jaarukaay wu neex moo tax wulli moom barki Serigne Baba Mbacke maa ngi ñaan baay ñaay du wax sax. Baye Ndiaye ngir yàlla rek na ko dugal ci journée yu mag yooyu. boo daanee bu raax wulli rek laa soxla maanaam moom dafa neex a jaar. jaar neex la wallaahi wulli dafa neex a. wallaahi dafa neex a daan. wulli. wulli wulli maa ngi moom mos nañ dalante contact. lu mu fa jëlee ba muy préparé combat bu mujjee yàqu bii nii. fekk na ma diine fee maag super c'est super jamono. ma daw jël ko muy kii ma xam rek ma dóor ko ngàdd ko plaqué mu daw fi taxu mu daw fi taxu ma ne ko gaynde gi am nga doole démb rek moom laa dugal stade mu koy wax ma ne ko jàmbaar am nga doole ko wa mais xam naa ne li ma liggéey nii ne ak temps yooyu ak temps bi sama jàmbaar tarama ëpp bokkul daal temps yi laa gën a taxaw instant yi ku ma xam buusite xam ne instant yi diini yi nii man loolu man man li may yenu si diini di yéeg ak diini wallaahi mbër yi am na mbër yi fayee ko ay millions wallaahi li may liggéey man gëm naa ne duñ ko liggéey hmm. te parce que damay daj ay coono yoo xamante ne nii maanaam hmm. ma dama naan sax man man nan la demee nii ba pare am kattan bi nag hmm. man boo ma fekkee fu may escouade da nga naan buusite àttanoo lii parce que damay escouade ay deux cent deux cent kilos bu 200 200 kilos dama koy squat. Oh, bu wàññil nag defal 100. xam nga rek mais du ma si am ay séries yu bëri ay 3 ah. séries laa si am. waaw non ah li ma la daa bëri loolu loolu bala ngay 200 xam nga li ma la sax waaye loolu daa bëri moo tax xam nga ay trois séries laa si am yenn wàcc xam nga mu jeex. du ma nekk di rey sama bopp de moo koy def di ñàkk su ma ko defee sama yére day tooy xepp li may wax am ëmb seen xam na li may wax. ah yéen a bokk sax barki Alxuraan tafaatin rek xam na li may wax. 200 <laughs> eh, xam rek may daj ay coono yoo xamante ni man xam naa ni man lii du sama làmb. Mhm. waaw booy bii maanaam lu fi war a jaar rek. Mhm. waaw après day jàll xam nga ma dem xooli feneen fi ma la wax. Mhm. taw ma loolu duma si waxaat. yee. kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj rek. waaw di sant gars yi di sant àdduna xam waaw di sant mondo entier daal. waaw di bëggee képp kuy bëggee Bou Siteu rek waaw di bëggee tamit sunu maman tey maman Diaw xama nga fekk ma tey si xam nga palaasam bi muy jaay ay kii armoire importé yi maanaam ay chaise table verre yi xam nga tabul amasé yi xam nga taay moom nekk bu rafet naaw de ah, da parce que xam rek taay ay ay ay ay noobul ñoo may invité ku si mel ne ay ay Mbaye mbay Mbaye Diop gi ñoom dañ may invité keroog rek maa safara dañ fa demoon mbaaw xam nga rek di ma tegal ay table xam nga man tam ma toog si ay table amasé xam nga di ma tegal ay ginaar yu duuf xam nga may lekk di naan ay si ay pérésiya yoo xam ne du jeex frigo bi Mbaye Diop day day def rek naan indi leen indi leen maanaam zuro damaa lekk ba layti layti na ma noo buugaan ma ne ko non lay te man man xaw man ay lekk ba desal laa gëj a def mais foofu damay lekk ba day day des waaw Mbaye Diop yàlla na ko yaakaar naa ne gis ngeen ki ñu dalaloon muy Bou Siteu nee naa leen mën naa ko tuddi la phénomène ndax daa doon turandoo bi saa waxee ñu ci bare bari dañ ci jaaree jàngat ci ñenn ñi di ko bëggee bu baax a baax boo xoolee duggee ci TikTok bi partout dans le monde comme ni mu koy waxee Bou international laa koy tuddee Bou international la kon di ñëpp di bëggee ñëpp waaye ngi gërëm kenn koo xam ni yaakaar naa ne sama muy nit ku baax muy Omar fële ca Espagne Omar bu Ada Fass maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar ni la kontaan naa ci yow yow koo bëgg-bëgg na la man dama lay bëggee Omar borom Espagne waaye nag ñoo koy nuyu tamit ak fi nga xam ne fi la ñu defee émission bi ndax yaakaar naa ne lii rek dafa nice muy fii fépp koo xam ni bëgg nga néeg bu taaru wala saal bu taalu